Rapido innove et lance son sticker prépayé. Rendez-vous à l'espace client de Cambérène pour vous le procurer. Infoline 33 859 16 85. Jaouda doom ji tudde naa ko vite fait mosquito ak Gamou vite fait tan sa bu la neex la cuuraayu bant buy dàq yoo pompe bu aay ci AIBD AIBD AIBD AIBD sponsor engagé dans le football bâtissons le futur Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka hmm. du vrai café bu ngeen passer passé une commande ngir pas ci probio naturel aldebi wala bokk probio naturel simpi da ngeen di jokkoo ak ñun ci 78 524 76 76 la fraîche dalle. seen boutique solution ci njiital alhaji sanjogu mbeng ak soay bu jox ngir deugal ak wéral ni suñu garabi ciosan yi lu wér la su ngeen bëggee dégg dëgg dal ba boutique la solution juddo la jaay garab yi bon ak naxaata jeex ak madame oxygène plus bu bees bi seen bu bees système la Vous avez fait une première état catastrophique parce que vous êtes égoïste. Elle est égoïste. Elle est ne baissons pas les bras. Ne soyons pas tristes, c'est le foot. Tout est possible. On est mené 3 buts à 0, mais la remontada est possible. Tu n'y la dit. Si nous voulons, nous devons am. Ne baissons pas les bras. mais coach li ma metti gën ma metti si match bi mooy que trois bii ma encaissé saa njóogu saa njóogu saa njóogu Kouthia abano stress mais c'est honte par foutu défenseurs yu cuune yu xamul dara yi la nañ waxante dëgg mais mais attends nag attention nag mais c'est la c'est la loi di di di yoonu football la nag waaw yoonu football la yoonu football la waaye nag suñu bàyyi la ndiku ci football bi

voilà foogu nga c'est pas normal comme ni ah, di comédien djogé fi ne mu dem di golul ay euh, euh, euh, ibilien eh, eh, xam nga xam nga lu mu doon ah, rek rek xam nga lu mu yow may nit ñi may nit li ngay stressé gu ndaw jeune c'est pas normal muy football ci vétéran ah xoolal eh Abba ah même bu dee jeune o teewul humoriste la bàyyi na ko mu fubal. d'accord les gars o nañu wax ci laa nekk football amul régime. merci. la loi du sport. merci fu ne dégg na ko. amul humoriste o apprenti taalaat amul maçon amul tailleur. terrain terrain. le foot c'est le foot. le foot c'est le foot. point final. xam nga wax ci loolu moom ba tax dem leen jëli ñett yi mooy wax ci ngeen tàyyee ñu coach. yow xam nga ni bu ñu delloo terrain it mënuñu fi dugal trois bii. waaw mënut a ne. ndax nag coach ñun mënuñoo añee yaasa ginaar bu fàtte rek après nag mu des suñu biir ah. mais yaasa ginaar kan moo ko commandé. ba lii nga commandé yaasa ginaar muy coach. yaasa ginaar bi ñun ñoo ko commandé te équipe bi yëpp ñoo d'accord ci ñu aña yaasa ginaar. parce que opposant yi ak parti pouvoir yi dañ tay waxtaan bo jubo nak nañ waxante deug bu len salal ok ok mais keut vraiment bëgg na xam ma ya sa ginar biñu añé ak 3 bi ñu duggal lan moy seen problème lan la mais kon nañu bayyi wax di te dagasé en tout cas parce que may waxal yi ni ma gis moy dafa mel ya ginar ñi ay xaré sa ya xam nga ko

Info line 33 859 16 85. ak Jaouda suñu santé day gëna a baax le moom tamu ñu taamu ci aduna bi. doom ji tuddé na ko vite fait mosquito. ak gaamu vite fait tan sa se la neex la cuuraayu bant buy dàq pompe bu ay ci yo AIBD AIBD AIBD AIBD sponsor engagé dans le football. bâtissons le futur.

seen boutique solution ci njiital alhaji sanjogu mbeng ak sohay bu jox ngir deugal ak wéral ni suñu garabi ciosan yi lu wér la su ngeen bëggé dégg dëgg dal ba boutique la solution juddo la jaay garab yi bon ak naxata jeex ak madame oxygène plus bu bess bi fen bu bess système la